waa li sabab daje président Idriss sekk ci Touba mooy li sabab ab jullit di taalibe ci tànk yi nemmiku ay mbokki taalibeem nemmiku ay kilifaam loolu moo ko fi indi te njëkkewu ko tey da di nag euh, dafa nekk ci yitte yoo xamante ni yitte yi moo laajal boppam bis yi mu war a def Touba yokk ndax li may faral di wax rek ñu bari dañ naan la kaay jàppale ma waaye moom nit ñi ñoo ko woolu mu ñëw ngir ñu jàppale ko ay nit nag buñ la wooloo am lu ñu bëgg am lu ñu gëm am lu ñu jàpp nekk ci engagé wu fas yéene ànd ak yow soxla la ngir loolu jàpp naa ne te Sénégal rek ñor la te li ñuy defit lépp réew mi rek lañ bëgg a sauver incha allah amatul sañ-sañu moom di dikk bañ a dikk pour ànd ak ñun nekk ak ñun ñuy sottante xel ak xalaat ak di saafonteeg ñi nga xamante ni yitte ji ñun ak ñoom ñoo ko bokk soxla bi ñun ak ñoom ñoo ko bokk di xëy ci waxtaan di gont ci waxtaan ba fii ñu toll kon loolu moo doon waral ay tànkam ci Touba dañ koy rafetlu nun ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoo nekk dëkk-dëkk bi te bokk ak moom gis-gis yi ak mbooloo mi nga xam ne aju na ci sunu gannaaw euh, kon président de sec mu amuñu lenn lu weesu daal euh, di ko sant ci ñëwam bii mu ñëw Touba ndax ñun yëg nañ ne ñëw na fi waaye xam nañ ne moom it yëg na ne ñëw na fi waaw. moo ne man de waxuma lu ay. Euh, bu fekkee da ngaa jàpp ne damaa jóge fenn nit bu amee soxla ngeen xamante am lu ngeen séq mu ñëw sukk ci say tànk diis la boppam ci waxtu yoo xamante ni euh, boo gëmul yàlla yow mi koy def sax doo ko def ndax am na waxtu yu gudd yoo xam ne ku la ko fëgg ñaare mën ngaa bañ a ubbi waaye nag mën ngaa ubbi ngir sa yërmande ji nga gëm ni am nga ko te yàlla mi ngi koy ñaani ak fi nga koy jaare am nañ ko nit nag bu fekkee ne da jóg ngir jàpp ko ngir yërmande euh, te ki ñu doon jàppale moom euh, xamal na boppam ne am na lu yàlla def ci jàppale ba nun nag rëcc wuñ ci dara ndax li nu war rek lañ def nit nag euh, am xel lañ yor di xalaat yor ay bët euh, xamit niñ doon doxe te japp naa ne ñi ëpp ci ñu doon àndal xamal nañ ko seen bopp comme ko nag euh, ni ma ko waxe woon ci rek euh, kii fi nekk jarul di tudd turam ku ne xam na ki fi nekk app bi nga xamante man bokkoon naa man Galas kalto mi ak samay bokk samay xarit samay am di jàmm ñi dajale woon li koy tax ak si fii mu nekk bokkon na ci ci pexé yuñ koy dajalé nak tamu mu ak ab yar ak teggin yëkëti ko jox ko ko mu dajalé ko ba nek fee mu nek mel na app ba app ba sa jéxon na waaye nak ginnaw tarxis amon na ci te bëgguñ li ci déssat ci kanam tarxis di ci amat ma yëkëti sama kaddu ngir réew mi tax fi la dëkk amna fi mën am lu fi xam te ñi tax ma mën ko te xam ko samay bokk képp la ak samay am di jàmm te nag euh, nañu xam ne man yàlla dafa dogal ma njëkk a génn rek wax waaye bi ma waxeeg léegi man de yëg naa ñoo xamante ni tudd seen tur duma ko def waaye li may li ma yëngal gësëm na leen waaye nag xam nga lu gësamu lépp du gësamu tàbbi kon day jaadu ci man la ma waxoon te engagé ko may nek waxtu woni diko di kofirndel, man ma yëkkati won sama kàddu ci poroxaan jël sama engagement bob ci sama conscience tranquille ndax lama xamone xamna lu ko upp lama meunon mënoon mën lu ko upp te nima ko waxe rek euh, yalla tax ma mën ko ak yonent bek Cheikhul Khadim ak sama bok ak ñima andal nak ñu yor senum xel di xalat te rew mi rek ñor len ñu xalat xol xamne jëmm jii taxaw ci sama wet di président Idriss Seck ñu ngi jëm le 24 février 2019 te am na loo xamante nii ni ma ko waxee demande sociale la ci réew mi ci secteur yëpp nag boo koy lim da ngay sonn te loolu benn solution rek maanaam benn mala benn jag genn wéradi la benn docteur a koy faj ordonnance bi lenn koy bind bi ma yëgee nag loolu agsi na man ci laa yëkkati sama kàddu maa waxoon ne kii fi nekk fauteuil bee mu toog nekk président day jeexal la République day jeexal le 24 février 2019 man Gallas Kaltoum maa jël samay engagement ci suma bopp ak sumay nit sumay am di jàmm ngir fas yéene yëkkati Macky Sall man maa ko wax ci fauteuil bee mu toog fa mu toog ndax bokkoon naa ci ñu ko fa yóbbu ngir incha allah ñaan yàlla suñu borom tàllal suñuy loxo ak suñuy bokk ak suñuy xarit yëkkati président Idriss Seck bi teg ko ci fauteuil ba wax nag euh, wax ji man la engagé waaye xam naa nim ma engagé ak ñi ma àndal engagement bi comme li nga wax it euh, man damay yëkkati sama kàddu di ko jox ñi dégg samay wax te mel na man di ko jox ñi xam sama yéene te bokk kook man di ko jox ñi bokk ak man gis-gis di ko jox ñi nga xam ne doxin wi may doxe la ñuy doxe xëy na taxaw wax wala fés ñu génn mënaguñ ko man nag yàlla dogal na ni mën naa ko ndax sama yitte rek a ma tënk te sama yitte mooy réew mi